suñuy jaar jaar daal dañu nekkoon ndaw dañoo bañoon lépp bëgg xam-xam. xanaa wax na su ko xaaritoon jar danaa ko am. abonné wu ci seen YouTube bu Ndiamé TV bësal na station bi ñu tàmbal la foofu nga mën a abonné ndax ngay mën a am vidéo yi ñu dugal si. mbokk yi ba tay yéen ngi continuer di and ak Ndiamé TV ci programme bi nga xamanteni mom lay amal fi ci daru gis ngeen ne serigne bi daf na ñaan ci takk premier xair bi wax deug yalla mbollem Baye Fall yi ñoom ngeen gis ni nek sama ginnaw nek ci liggey bi di gas li nga xamanteni tay moy fondement bi kon da ngeen and ak ñin ñu dugg ci biir ñu ko ra ñi nga xamanteni tay ñoy Baye Fall yi ñu ci wax deug yalla ci gas fondement bi di xitma wax deug yalla bo xolé image yi dalay fàttali jamono bi nga xamante ni tey moom la murit yi di gas fondement Touba bi dalay fàttali xaalu murit bu njëkk boo xoolee Baye Fall rek ak saa yu kon loolu rek ngay gis lan lay tegtale mooy Cheikh Moussa la Serigne Touba woote rek moom la woote. xamal jaam ñi yàlla yóbbu leen ci yàlla yeggale leen ci yàlla waaye wëlbateegu nag ak saa yu kon jóg seen diggante ak seen borom ñi jaamu yàlla te dooduñ bokkaale dara. waaye ginnaaw bi leen seex mu Moussa defalee loolu ndaw ñëpp ñoo wëlbateeku na seex mu saa mi ñuy defal lii nag dinañ ko delloo njukkal ak saa yokkoon ndax ñi mën a am barke. looloo tax ngeen gis mbooloo mi sama ginnaaw nekk ci gas fondement bi di ma ngir fas yéene làq ngërëmal Cheikh Moussa Cissé Ndiamé borom daaru dañuy yegg ci biir rek ñu xool ñenn ci Baye Fall ñi laaj leen naka la ñuy dundee liggéey bi tey fii ci daaru waaw di wax bisimilah di wax tamit ne am na coono amul coono ndaxte lépp loo xam ne boo ko defee am ci fayu yàlla rek mën nañu wax ne coono nekku ci am na coono ci jëmm ji waa amul coono ci ruu gi ndaxte lii dundoo ruu la te Baye moom amul lu dul jëfee ndigal te li ñu fi boole fi du lenn lu dul jëfee ndigal gi nga xam ne moom la ñu xalifa bi wooyee ñu ñëpp ñu teew fi muy dëkk boo xam ne dëkku Baye la di wax ne kenn fi nekk di Cheikh Moussa ginaaw Cheikh Moussa ñun ñëpp ay Baye Fall lañ kon bu wote dañuy tak ndig yi ak mom lool mo ñu fi indi ndaxte li Alxuraan di wax ne fa'alu lima yurid lépp lu am rek dafa soof yàlla kon li nekk na lo xamne lu soof yàlla la mota ñu dag ci ni te jël si lépp jëmbal ko ci bis bi ni ñëw ngir jaayante nekk na lo xamne lépp lo xamne def nañ ko ci yàlla dañu koy fay ndaxte fa man yahmal misqala saratin khayran yaro wa man yaxmal misqaala saratin sharran yaro lool alxuraan wax muy jëf joo xam ne lépp lu jaam jëf lu toll ni charan da nga koy gis lépp lu jaam jëf lu toll ni kiitam da nga koy gis kon bu xalifa bi joxee ndigal ñëpp ñëw teew fii di jaayante ngir jëmmi yàlla kon dañuy gën a pasteefu gën a doguwaat gën a jaayantewaat ngir mu nekk loo xam ne lépp lu waay def lépp lu waay def da nga koy gis ki nga xam ne mooy Cheikh Modou mu ndaw dañoo soññaat ndaxte gis nañ ko fi sànq mu sëgg ci kàmbu di gas gis nañ ko sànq mu sëgg ci kàmbu di jaayante ba lii am fii tey kon suñ xel ba mu ñu wooyee suñ loolu la njëkk daj xam ne lu bokk nuroo te moom Cheikh Moussa waxoon na ko arfan bi arfan xam xaw ma yónantu laa xaw ma du ma yónantu waa lañ jox yónantu yi lañ ma jox kon bu sëñ Touba taxawee la nekkoon màkk mu def ko Touba kon su jëmm ji taxawee li nekk Touba mu jëmbal ko dëkk bii di daaru rek kon suñ xel da ciy dal suñ xol da ciy sedd te mbégte rek lañ ciy ànd ak ci loolee. Euh, taalib yi nga xamante ñi jàpp ne liggéey bi du liggéeyu daaru ñi jàpp ne liggéey bi liggéey la boo xamante ni dañ ko war a ànd ak bi ba keroog ñi waaw li ñuy wax rek liggéey la boo xam ne tamit bépp taalibe bu yaafus bàyyi ko na la wóor na njaboot gi dinañ ko jël àggale ko kon ñun taalibe yi nañ si fu pësteefu liñ commencé tey jii nañ fexe àggalee ko noonee fu liggéey bi toll ñun taalibe bu ñu bàyyee rek njabootu Cheikh Moussa gi dañ ko jël àggale ko te su boobaa lay doon si ñun taalibe yi kon ñun taalibe yi nuñ dogoo tey ànd ak pas-pas ànd jom ànd ak fit ba ñëw tey di ko jaayante loolee kon nañ jëlaat fit boobu jëlaat jom googu jëlaat pas-pas boobu delloowaat ko ba tey nii ñu jëlmalee di jël caabi di ko jox kalifa bi ñun Baye Fall yi nañ jaayante lool te gën koo góorgóorluwaat. Serigne Alaaji Keba suñu borom yàggal ko fi te may ko wér yéene bi mu am ci liggéey bi suñu borom defal ko ci lu kawe njortum dañoo defal luñ mënta fay loolaa waral ñaqaay bi te xam-xam bi ñu sëriñ bi jox yàlla bakkan la ci laaj ak anfusahum wa amwaalahum bi anna lahumul janna daf ne ñiy jaayante ak man ñaar laa leen laaj seen bakkan ak seen alal lii nag euh, yëngu yi li ko sabab loolu kese la mooy lim ñu yëgal te mënuñu koo fay mu woote waat beneen bërëb boo xam ne bërëbu santukaay yàlla la waaw ah su boobaa nag dañuy ñëw jaayante góorgóorlu fexe matal jaayante bi rek incha allah. lislaam benn baat la muy baatu laa ilaha illallah dafa am secret secret boobu la ñu xutbu samaan bi jox secret boobu nag képp ku ko yëg ka la ko yëgal lu la sant di ko def. ndax kala koy yëgal bakkanam mo moo la gënal sa bakkan kon kon dolem dalay gënal sa dole lolo mo waral xidma yi xakka new fa tabaarakalla ñu nekk ci depuis bobu ak legi tayit nak dañuy ñaan yalla nekk ci mu pare rek wala ñu ñak suñu bakkan waaw day pare rek wala ñu dee hala kulli hal kon fas ne liggéey bi ngeen ànd ko ak Serigne El Hadji Keba sise ba kerek ñi inigré jumaa ji waaw loolu fas yene and ci ak mom ba kerek ñi inigré jumaa ji ci ci ci ak ci jëf manam ci jëm ak ci jëf lépp loo xam ne jëmm yee ko war a fondement matale ko su ko jëmmuy fondement yee ba mu jog la cay des nag doole koy matale muy doolee saayir dañuy solaa suñu daal rek uti jiwaat ko incha allah. lan ngay wax taalib yi nga xamante ni ñi gën a yokk pas-pas bi gën a yokk yitt gi xam ne liggéeyal Cheikh Moussa moo fi nekk ndaxte ndigal moom jëfee rek. waaw Cheikh Ibra Fall dafa waxoon ne ndigal caabi la ndigal caabi la bu ëppee du yées bu wàññeekoo du yées loo xam ne bu ëppee du tijji bu wàññeekoo du tijji kon nañ yem ci li ñu digal la comme ndigal la loolu nañ ko jëfee rek te yem ca waaw loolu incha allah suñ ko defee la nuy wut danañ ko am. waaleykum salaam wa rahmatullah jëwriñ ñu ngi lay nuyu di la ziar di ziar euh, mboolem kuy suivre émission bi nga xamante ni waa Njambe TV ñu ngi koy amal wax dëgg yàlla seen liggéey doon liggéey bu fës ci kër gi liggéey bu ràññeeku liggéey boo xamante ni saa ñu ngi jottali woote Cheikh Moussa bi nga xamante ni tàllali woote Seydina Muhammad alayhi salaatu wa salaam la yaa ci xaadimul Moustapha wàcc ba ci ku tedd ki di Cheikhouna Cheikh Moussa si Njambe Daaru ñun nag dañuy sant di gërëm ndax taalibe amul lu dul ndigal te ku tedd kee Cheikh Alaaji Keeba Seen ñi koy ñaanal yàlla yàlla yàlla guddafal te wéral cëram ñu koy sant bu baax a baax a baax ci woo gim ñi woo ndax yàlla moo ne wuyu leen woote bi yàlla buñ leen woowee waaye yéen ci li leen di dundal te gëm nañ ñi li mu Moussa woote benn baat la muy laa ilaha illallah te ci la dund nekk dund goo xamante ne adduna ak àllaaxira la dund goo amul yemuwaay kon nag képp koo xamante ni jottali nañ la loolu nga jël sa lépp jeexal ci yaakaar naa ku la digg ndékki jox la ko bu la diggee añ war nga ko mën a gëm te li ñu jox man na sëkk mooy leeru laa ilaha illallah lii ñu ñu woowaat nag wax dëgg yàlla feddali la ak laxasaay ngir lan taxawal jumaa joo xam ni jumaay daaru kër ma xureeja la mu doon loo xam ne dëgg yàlla capitalu islam boo gis réew islam boo gis dëkku islam boo gis lu mel ni am na fa kon nak ñun cant lañ amel si alaaj Keba mi ñu wo ci li ñu ñaan yalla nak wax yalla yalla yàlla yalla may katan ak fekke ak tal ba nyu ñu ko tambalé tay ñu bo ñu ñu fekke ko ta tal ko ci bés bi nga xamanteni ni ci lañuy ubbi ni ñi ngi ubbi jumaa ji di ci julli julli gu ñëk waaw euh, xeyna sax soñña mom dina ëpp ci man waaye sama di wan ni sa kilifa bu tambalé té li mu tambalé di naal maquette bi rek boko xolé rek xamni mbir la. kon mu tàmbali ko di ko di ko nësër di ko nësër di ko nësër ci lu yàgg kon def na ci xam-xamam def na ci alalam def na ci xalaatam waaye def na ci tamit itam dooleem kon yaakaar naa ñu nit bu ñu ñëwee di ay taalibe te bëgg ngërëm rek ndax kii taxawal liggéeyal yàlla ngërëmal yàlla képp nga ca war a sàkku ca kanka àndal sëñ Kébaa ngërëmal Cheikh saa la ci sàkku Cheikh Moussa ngërëmal sëñ Tuubaa la ci sàkku sëñ Tuubaa ngërëmal yéen la doon sàkku te bind nañ te leen ñoom ñi jiitu ñoo am nañ ko kon ñu bu ñu bëggee ngërëm dañuy aw fañ aw rek Cheikh Moussa bu demee ba jëm mag wëlbatiku di woote di wax yàlla ne jottali leen ma jottali leen ma kon lu mel ni itam jottali bu woote xayrul alamin la rek du dëgg kon nag liggéey bi maam tàmbali la sëñ wax na ko ñeew ma ko tàmbali ki yeggali laa ñee kon nag ki ci bëgg am ngërëm tamuy dëgg ngërëm laa nga ca cat la ma nga ci mujjantal ba kon nag ñun dañuy ñaan yàlla mi am kattan yàlla mi mën te te tey mënal jaamam yàlla mi am tey may jaamam yàlla mi fiq fan tey wéral ay jaamam yàlla na yàlla may mboolem taalibe yëpp wér ak wérle may ñu koppor yu bari waaye na koppar gum ñu may nag ñu am yéene delloo ko ci liggéey bi nga xamante ne moo tax ñu koy ñaan kon nag bu sëñ bi dellu ginnaaw ñu war ñoo dellu ginnaaw ndax doolee taalibe sëriñ ba waaye doolee seriñ ba taalibe lu tax ñu nekk fii dañu xam ne lii yëpp jëf jël la rek dañ ne lu waaye jëfut doo ko jël moo ñu waral ñu ñëw nekk fi ànd ak taalibe yi ànd ak euh, mbokk jullit yépp di ñëw ngir liggéeyal Cheikh Moussa si bërëb bi ngir jumaa ji nga ko dafalal te mu doon loo xamante ni lum naan la ndax liggéeyal lislaam rek moo ko ñor kon nag bu fi taxawal jumaa ahlu sarian ñep dajé fi ahlu xaqiqati bi ñep dajé fi day rafet ñu nit bëgg lu baax képp ko xamné ku bëgg lu baax ta ci dox di ci wax day jaadu nga ñew tew ci jotay bi ngir sakku ci lu baax. nak nga gisé Baye fali bi xalifa bi joxé ndigal rek gis nga ñep dafa melni dañuy taggo seen sago waye ñew di xitma yo xamanteni ku ci nekk yene nga kay defé waye ak bëgg-bëgg. yegg yegg la lu nekk ci ñom la. nit la nekk ci yow soo koy jëf wala nga cay wax danga koy defee ak def boo xamante ni doo ci amand ak ngistal yëg-yëg rek nga ciy demee ak xaqiqa ndax la la koy jëfloo moo tax du doonati sa nafsu bakkan waaye day doon loo xamante ni lu nekk ci yow la nga koy jëf moo tax nga ciy dem ak yëg-yëg ak gis-gis parce que da ngay xam fay ga ca ne da xam fay ga ca ne moo tax boo koy def danga koy def yeg yeg ak bëgg-bëgg ak xam ëlëk la cey nekk ndax gis nañ jaamu yàlla yi moom borom daaru sax gis nañ gis nañ jëf jëfam moo ko may lu mu am moo tax képp koo xamante ni lu nit ku baax sos la nit ña nekk ca day baax nga jog nekk ca ni ñoom ndax loolu moo lay ci may li nga am. waaw comme ni ngeen ko gisee rek ñun ñëpp noonu lañ ko gisee mooy ci yoonu murit moom dafa ànd ak xidma ah, sëriñ Alaaji Keba nag moom moo woote tey bis maanaam liñ doon wax ci Baye Fall naan euh, la woon Touba ñëw na daaru bis bii koy confirmer ndax fépp euh, Touba moom lañ bëgg ko delloo daaru lii bokk na ci tey. Euh, ñuy sant yàlla bu baax a baax ci yëg-yëg bi nga xamante ne tey ak pas-pas bi nga xamante ne mboolem góor yàlla bu tey fii yëg na ko am pas-pas bi nga xamante ne kenn ku nekk soo sañoon mu doon sa mbiri bopp loolu moom ñu ngi ciy sant yàlla bu baax te di wax itam maanaam liggéeyub Cheikh Moussa feeñaan na tey ndax li tax liggéeyub Cheikh Moussa feeñaan na tey mooy lu mel nii tey xale yi gën a tuuti sax ñoow ma gën a doy ñoo gën a doy waar ndax kenn ku ne pas-pas ak yëg-yëg bi nga xamante ne am nga ci liggéeyal mu Moussa mooy waral na njàmme lem def dugg na ci jàmme sa bokk na ci li nga xamante ne moo doon jafe-jafem gannaaw bu mu xamee yàlla mooy fexe ba lim yëg mu yëgal ko jaam ñi bañ yëg ko waaye tey bis bii tey suñ fëggoon jàmme mu xam ne lim def ci jaam ñi yëpp yëg nañ ko waaw wax dëgg yàlla loolu moom tey am na mbégte moom Cheikh Moussa fa mu nekk yeah? waaw mooy maanaam maam Cheikh Ibrahima Fall rek euh, donga yi mos nañ di liggéey comme nii rek mu ñëw lam kàddu woon tey jii ku ko kàddu itam dund nga ko tey mooy maanaam yoonu murit xidma la se itam lu bokk rek niroo maanaam la woon Touba ñëw na daaru gi rek ci laay cadre ba léegi ni samay kaddu mooy maanaam léppi Touba rek ñëw na daaru tey xidma bi nga xamante ne ak xaal ak pas-pas bi nga xamante ne yoonu murit am na ko loola mooy royat ba si bis bii ni tey xam nañ ne kon maam siyaare bi ñuy woote di sant Cheikh Moussa kon ndekete taalibe yi suñu leen wooyee ci leneen itam danañ wuyu see noonu kon siyaare bi lekkam ceeb andiwul leen waaye xidmaal Cheikh Moussa ngir barke moo leen ndax bis bii confirmé na ko xoowuñ kenn ci lekkam ceeb xoowuñ kenn ci naanam glace xoowuñ kenn tëdd ci nooy dañ leen woo ci liggéey waaye ñëpp réussi nañ sa fas yéene liggéey sëriñ bi ba liggéey bi noppi incha allah moom mooy may kenn ku nekk damay demee ci bitik ba ñaan amoo nga leb wax dëgg yàlla boo jëndee moom boo boo jëndee di nga am far force kon comme mii njëg la lu Cheikh Moussa di jaay daf noonu xam-xam bi dama koy maye alalu yàlla la moomu ko waaye barke dama koy jaay kon ñun ñëpp rek niñ commencé nañ fexe dem ba kerek bu sooree li mat ba kere ñuy jox caabi jébbal sëriñ bi ta liggéey bi amul kenn koo xamante ni warati ngaa dellu gannaaw wala ngay yox yoxi ku amul kenn koo xamante ni maanaam ñàkk nga cee def dara ku amul sa alal joo ci def am sa doole joo ci def wala sa xel mu sell wala sa kattan même bu dee ne da ngay ñëw di joxe ndox sax ak sa nga ñëw xam ne maanaam liggéey la ñu woote sa ku jëf rek jëriñu Cheikh Moussa moom ak sa ku ñeme pay la maanaam lebal leblante rek benn taalibe kenn ku nekk boo xëyee ci moom rek mu gont ci yow kon maanaam maa ngi soññ samay mbokk gannaaw bu ma soññee sama bopp ci waaru ne maanaam nañ fas yéene niñ ko tàmbalee bis bii nii ñu dem ba kere ñuy jébbal sëriñ bi taalibi euh, caabi xam ne luy mbooloo mi di bëri bëri kenn liggéeyul fi kenn kenn ku ne sa bopp rek ngay liggéeyal kenn nekku ci kenn kenn ku ne sa bopp rek ngay bu kenn jàpp ne maanaam sa sa morom ngay defal damay wax ne ñun ay ji Cheikh Moussa bi du mbooloo mi moo ñu indi suñ bopp ñu tax a jóg bis bii nag mën na koy confirmer ci ci yure ak saa yal na ko télé bi roy ba yegg ci tele yi nga xamante ne ay CNN ay BBC ay télé yi gën a kowe ci adduna bi. suñuy jaar jaar daal dañu nekkee ndaw dañoo bañoon lépp bëgg xam-xam. danaa wax ni su doon jar doon naa ko am. abonné wu ci seen YouTube bu Ndiamé TV bësal na station bi ñu tàmbal la foofu nga mën a abonné ndax ngay mën a am vidéo yi ñu dugal chaque jour.